suñu communauté guinéenne bi nga xamni bilé sen euh maymuna diallo mo mo mo len jité indi len fi pour que ñu rencontrer ñu ndaje bi nak dañ ci am mbikté parce que ñom dañu nek ci Sénégal am sen bëtt di sétane di xol acteurs politiques yi quel est leur comportement ñu tawé ba gis né ñun coalition aljana peut-être que suñu doxaline ak suñu façon ak ni ñi défé dal na seen xel ci li ñu ñëwoon fii tey pour présenter ñu seen organisation bi njëkkee nag li ñu neex ci organisation bi mooy d'abord ñoom ñii Sénégal la ñuy sëyee ñii seen i doom fi leen juddoo entre la euh, Guinée et le Sénégal c'est un même peuple intégration des populations lañ fiy def kon bu ñu dikkee toog war a waxtaan ak ñun ñun dañ ciy kontaan liñ ci ràññee aussi mooy gis nañ ne association bi ñu yore du association boo xam ne bi Sénégal rek la yem Sénégal association la boo xam ne bii dafa dem bitim réew bi ma leen dégloo aussi gis naa ne ay jigéen lañ yoo xam ni dañuy daan seen doole ba pare di def du social ci biir Sénégal donc ñoom ñu ngi def intégration des peuples beneen bi nag pour résumer ce qui est important ci affaire bi nee ma dañu ñëw pour souhaiter da jël seen association seen mbooloo yi nekk fii ak yi nekk ci biti pour di àndale jàppale président Macky Sall parce que li muy liggéey gis nañ ko te itam xam nañ ne boo nekkee ci réew nga ànd am relation ak président de la République dafay faciliter relation yi entre les deux états donc moo taxoon ma doon leen dalal. di sant président Thierno Lo mi ñu fi dalal tey ci këram ji waxtaan ak ñoom euh, ñun tam ñu nekk communauté guinéenne boo xam ne Sénégal fii la ñu basé wu fii la ñu yaroo fii am na ñoo xam ne nag dañoo ñëw mais seen njaboot yëpp fii la ñu juddoo fii la ñu bokk. Euh, tamit di kontaan ci dalal bimu ñu dalal waxtaan nañu échanger nañu Sénégal ak Guinée défé na ben réew la bo xamné ne kenn mën ko xaar ñaar donc euh, ñun paré won nañu déjà depuis 2010 pour andax président Macky Sall tay lañu gëna taxaw pare andax mom tamit jappalé ko inshallah ci deuxième mandat bi yàlla nañ ko féké té tal ko xamna inshallah dès le premier tour le président Macky Sall sera élu inshallah avec 65 bu si yalla andé ñu ñaan président Macky Sall nañu recevoir. nañu recevoir na resevoir suñu association bi te na recevoir suñu jigéen communauté guinéen bi yàgg nañu fi te yàgg nañu xam suñu association Marifala bi yàgg nañu fi te yàgg nañu tamit topp di ko jàppale ci li ñu mën donc nañu recevoir parce que ñun tamit dañoo soxla ku ñu dimbali ci lu mel ni formation yaa ngi fi formation bu nekk mu ngi fi. micro jardinage bi mu ngi fii transformation de fruits et légumes pâtisserie lépp a ngi fii yaakaar naa ni ñu jàppalee yeneen association yi ak yeneen femmes yi yaakaar naa ñoom ak bi ñu am ñu tamit ak boobu lañu am financement yaa ngi fii mosuñu jot ci financement yi nit ñi dañuy utiliser utiliser suñu tur président Macky Sall xam naa soo moytul mosu ko sax yéeg soo moytul mosu ko dégg mais bii yoon na yaakaar naa dina ko dégg parce que yeggal nañu ci kër président Thierno Lo te incha allah yaakaar naa dina ko dégg nañu recevoir ñu toog waxtaan ak moom échanger parce que ñun moom lañ xam moom lañ am.